njëy képp ku suivre chaîne bi rek ñu ngi lay nuyu tey di nuyu sama mbokk talibé yépp danaka sax jour ñu ngi ci cant yi fi ñuy doy ak yeen bari na man na nek bis bu ñu dem rek dañ leen fay fek ngeen fay liggéey liggéey bu am solo am solo kon nak mbokk talibé yi na ci ñepp japp rek ñu xamné ne seen bi mom moy sunu seen ñun ñi nga xam ci si ni ñooy bàyyi daaru yi alaykum bëgg dégg lu neex ma nga bëgg gis lu neex ma nga bëgg tatan lu neex. waaw abonné ku wàllu yaan da nga teggul te li ëttu no ni la kon li bay daaru yi ñun ñoko mom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 jawret ma ngi lay nuyu ma ngi lay siyaar ñu delo delloo bu wër kilifa ba ya ngi si jam. ma ngi si jam bu baaxa baax alhamdulilah mais tour bi nan la kalamu Grand Dakar kalamu Grand Dakar ma ngi lay bëgge fi la rawé bu wër wër mais kalamu naka koor gi ba sant borom bu wér di ko borom daaru nu ñu ko liggéey jaamu yalla wa ndax mom lañu saxalé kessé kese mu ñu tagat su julli at kessé kese cerno no reñu mais tey naka nga gisee initiative bu bu rafet bi dafa ba pare bëgg naa nga wax ma tamit bi mooy ñaatalee édition. waaw lii moom ñuy gën a santaat borom daaru bu wér a wér ndax moom moo waral ñu koy def ndax Thierno Nourène moo fi indi Marmite du Cœur ba ñu ñëpp ànd ba Marmite du Cœur waral cant gii nii gars gi ki ko teewee ki ko def gis santaat nag joorin bii nii bamba bii bu wér ndax taxawaayam rafet na si bu baax a baax. ba chaque at daf may woo jox ma xéwal bu bëri na ma sa waañu café géré ko bugguma nga ñëw gi ma laaj dara wala gi ma sonal wër na sëñ Touba lépp la def si waañ bi kafe am na fi meew am na fi was am na fi billaa wallaay taalaay ñuy ñaanal yàlla nag seen taxawaay jëm si kanam gi ñaanal waaw At Center Market TV Sen Smart TV est-ce que ñu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mu doon ay télé ay télé waaw ñu koy teewee gi santaan nag bamba bii nii bu baax a baax gi jaaraamati tamit borom daaru nooy reeni ñu ñu ànd ak moom ñu yaakaar borom daaru ak waa ñu ngi borom daaru nu ñu mel moo ñu ko def mais sëñ bi nee na nañuy julli nañuy woor jaamu est-ce que mais am solo loolu non rek am solo amul lenen lo xamante da nga siy génnee julli ak jaamu yàlla leneen loo def te julliwoo wala leneen loo def te wooroo leneen loo def te liggéeyoo nekkoo si jaamu yàlla wër na sëñ Touba gi jaaraama borom daaru mi ñu indil julli ak woor ñu ko siy santaat bu baax a baax a baax borom daaru nooree ne yàlla na fi yàgg ta ànd kontaan nañ si moom bu baax a baax kàddu am na solo mbokk defe naa euh, euh, ki ngeen di gis mu taxaw nii mooy Bamba Ridis moom xam ngeen ko bu baax a baax ndax déwén Euh, euh, incha allah ñaan nañu yàlla teewaat fi ñaan nañu yàlla di fi ñëw di fi ñëw di ñëw waaye daaw maanaam gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xamante ne nii seen Smart TV def nañ ko. alors Bamba maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaare di la jox sa wàccuwaay di la déwénati. waaw anzu billah bismillah yi wala yàllaaw jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jaaraama borom Daaru Nooréni waa ñu di la ziar bu wér wér wér wér jox la jox seen wàccuwaay yéen ñëpp yéen waa Sen Smart TV. ak képp kuy nuyu képp kuy bëggee émission bi ñoo lay bëggee di la ziar di ñëpp. Bamba li may li may li may li ma lay njëkk a laaj mooy Bamba naka lay naka lay passé li nga xamante ne mooy weeru bi. waaw weeru koor bi ñu koy passé comme képp comme bépp jullit rek ñu koy ñu koy passé lañ koy passé ñun ay Baay Faal lañ ay Baaru Daaru lañ waaw loolu loolu bi sant rek moom la ñuy def dañuy julli woor jaamu yàlla xëy nekk si nekk nekk si waar bi ngoon ni dem si ndog yi joxe joxe ko pare nekkaat si xaste yi. suñu paree nag dem tëddit waa waajalaat suba loolu lañ ko noonu lañ ko jàppee ba 30 jeex incha allah. mais Bamba bëggoon naa maanaam ñu waxtaan une minute une minute euh, tey bëggoon naa nga lancé message si kër gi muy si Baye Daara yi di si Baye Fall si ñëpp maanaam taxawaay maanaam gars yi seen taxawaay si biir kuréel gi seen taxawaay si biir cant gi euh, tey su ma la doon laaj maanaam gars yi naka la ñu war mën a taxawee si biir kuréel gi. waaw gars yi seen taxawaay dafa war a dafa war a sell rek gars yi dañoo te te jëfee ndigal bàyyi tere bàyyi lu maam bi tere rek gaa ni ko a bàyyi lu mu digal ñu def taxawaay waay bi la wootee bàyyi jëfee ndigal bàyyi tere ànd ànd doon doon sëy ah di xàttandoo di dóorandoo loolu la fi ne liggéey jaamu yàlla rek fi ne loolu daal su ñu ko defee gëm naa ne Serigne Touba wisi si barke Sidna Ousmane Mbacké mais daaw gisoon nañu sëñ Sidna Ousmane bu borom daaru teew gis nañu sëñ Modou Mbacké bu borom daaru teew gis nañu Cheikh Ousmane bu soxna Xadi teew mais est-ce que am nañu yaakaar ah si la ma a dégg dégg naa borom daara day teew si jant gi. waaw am nañu si si yaakaar parce que bi fa demee barkaat yu démb bi waxtaan ak moom loolu moom la wax dafa ne su ma mënul egsi daal dinaa yónnee ñun daal xam naa ne suñ ñëwul daal suñ ñëwul suñ ñëwul incha allah seen Ousmane daal dina teew ak seen Modou ak invité yëpp ñoom ñoom ñuy si yoon bi ñoom Sidi laa ñuy si yoon bi ñoom Sóor dama ñuy si yoon bi waaw daanaka jaajëf waay. mais Bamba naka nga gisee daaw li nga xamante ne mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne seen Smart TV def na ko si base bi. waaw kontaan si ñoom rek Smart TV moom ko xam seen liggéey moom. xam nga xam na si kaw kanam la nekk. dem. ba dama yëpp yëpp yëpp si si YouTube bi. ak si bi jàpp si liggéey bu baax. parce que ñii ñooy suñu télé. Uh-huh. ñii daal ñooy am parce que ñooy yëg ñoom dañu leen war a yëg. war a seetaan Smart TV abonné inscrire nekk si di ko seetaan di leen bëggee bu wér ah, gaay bambara dis la woon ak màggat ba borom daaro kamu moo ne si cadrage bi kamu kii di sikar nii mooy jibiri sikoree moo tàmbale daaw li nga xam ne ni mooy cand gi instant mi ngi yëngal gësam mi ngi toj ñuy def rek mooy dañuy bàyyi kamu daal di daago nank si biir cand gi ñu tasaare foofu Sen Smart TV nag noonu la ret nañ dugg si dul ndigalul sama borom te ni koy waxee saa su nekk dama koy répété waat te naa ba fu ñu ma yóbbu teg ma buñ tegoon paaka ci bi nga xam ne dagg ci dese nañ ko dagg ngir lool ku jaamu sama borom perte nga perte nga adduna perte nga allah. billaahi wallaahi taala ndax man mii de di ab jaamam képp sama bëgg ku ko xam te defoo li ma bëgg bu ma ko ñëwee. nga man ko te defoo ko te dara teguwuloo koo mën a def te defuloo ko wax dëgg yàlla bu ëllëgee bu ma mënta ñàkk a bañ a lim sama noonu bu ma agsee ci yow bu ma leen limulit maandu ci yow sakkaltu mag sama borom waaye léegi ñun bu ñu sama borom wàccee digal ñu tere ñu te li ñu digal lépp defuñu ko li ñu tere lépp bawuñu ca dara luñ seqal moom kon bu ko defee loolu il faut ñu delloo si waat ko ci suñu xel Serigne Touba li ñu fi bàyyeen du ay milliards du ay bâtiment du ay daray àdduna déedéet àdduna bi moom li fi ne des koy dox di ko wax rek di ko lijjanti ba mu sotti nga jariñu ca la nga ca mën a jariñoo li ci des da dee bàyyi ko fi rek hmm? fexeel ba kon la nga ca yóbbaale na doon yàlla sama borom di gërëm te yàlla sama borom gërëmul lenn lu lépp ñu dugal ci ñun ñu góorgóorlu ci suñu kam kattan lim ñu tere ñu di ci góorgóorlu suñu kam kattan la ca des ndimbalam ñu yaakaar ko ci lii dong la de téewalal bu bari beeg coow yu bari yi ngeen di dégg wax ju bari jeeg yëpp lii dong bu ko defee nag yi xew ci yu ñaaw yeeg yooyu bu àdduna léegi du fi fi mas di jóg xanaa kay li ñuy def mooy maag yéen nañuy mootandi ko rek ñun bañ a bokk ca ñooñee hmm? bu dee wax ju ñaaw nañ rus Sëriñ Tuubaa génn ci suñu lame yi lu ñaaw muy dugg ci noppu doomu bu dee jëf ju ñaaw nañu rus Sëriñ Tuubaa jëf jëf ju ñaaw joo xam ne bu ñu jógee fañ ko doon jëfee bu ñu xalaatee bu sëriñ bi delloo ci suñu xel ñu am kersa suñu diggante ak moom ndax nit boo ko yaakaaree da koy bàyyi xel loo xamante ni bii tey ki ko yaakaarul ni ko yaakaaree bu ca yemee am gàcce sàkkantuma yow mi ko doon yow mi ko doon def kon nañuy bàyyi xel sëriñ ci suñuy jëf ak suñuy wax ak suñu nekkin ak lépp lu ñu mënti def rek nañ ci bàyyi xel sëriñ bu baax kon nag bu moo amoon li ma gën kenn ñu du nii ngeen toogee ni teg ñu defe ko ni bàyyi suñu safar ñoom sëñ Modou suñu suman ñu ñëw ngeen tàllal seeni loxo ma ñaanal leen da ngeen xam ne li may wax dañuy woowee sëriñ ñu dégg naan sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi sëriñ

def ko muy métier nga di ko jëfandikoo ñun njabootu Serigne Touba gii ay ndono lañu li ñu yor des ko doon bu ci wax jotee dañ cay wax lañuy war a wax bu ci jëf jotee ñu jëf ca lañ ca war a jëf bu nit ñi jaawale ñun diglewuñu dañuy fàttali ndigal li lenn la muy ndigalul suñu borom bi ndax dégg nga bu baax. am na yenn yu bari yoo xamante ne bi dañ koo dugal ci seen bopp dugal ko seen bopp dugal ko seen ba mu fees ay wax la rek loolu jéem leen koo jàngat ngeen seeraat ko bu baax a baax ñun Serigne Touba daf ñu fee bàyyi dafa am lu ñu fi bàyyi loolee bu ñu fi bàyyi nag moom la ñu doon na ko nekk seet ci sa bopp say waajur biñ fi jógee kër gañ la fi bàyyi wala xéewal gañ leen fi bàyyi njaboot ga ñoo ko seet ñoo ko yor buñ ba mu yàq seen bàyyi moom la ko waroon def na seen maam it la ko waroon def na yéen ñu ko bàyyi ngeen donn ko bu ngeen ko sàmm ba ab sàmba booy jógee fa la ñëw yàqal leen ko yéen a seen bopp yàlla defu leen dara seen bàyyi defu leen dara seen maam defu leen dara yéen yéen a sàggal seen sàggal ko ba yàq seen alal waaw ñun ñu ne kaa moom la ñu Sëriñ Tuubaa diine lislaam lañu fay bu ñu demee ba mënatuñ cee wax wala buñ ci waxee bu juró ay kenn ku nekk bëgg wax ak ko neex wala def lu ko neex ah ba tam li lu mu jar lii mooy dëgg amuñu ci nëbb amuñu ci làq amuñu ci ragal amuñu ci leneen hmm? lii doomu la tam ñun ay ndono lañ de dañoo doon Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ci liggéey bi mu doon liggéeyal boromam ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag dañ dul nangu ku mu neex rek nga ñëw dunde ko nu mu la neexee di ci dund nu mu la neexee te kenn wax xam ne boo fa nag dañ la xëy taxawal doo ci demee nii rek. laataa xabir ma laysat bi xaadiraatin wala tuhaayib rajaahu fiika yàlla wa asina maha min ma ikaw shariman istaatuhu o jamil irhal ci yàlla. jërëjëf. yàggal teewal naa. amiin yaa rabbal yéen yàlla sama borom defal leen. jàppale leen ma ngi jëm Serigne Touba ñu ànd góorgóorlu yàlla sama borom dimbale ñu. ba yaakaar bi suñuy wajur am ci ñun yàlla sama borom dimbali ñu ba yaakaar moom tase ci ñun nit dangay am jom waaye su ko wéggee mën na dara bàyyiwu ma fa lu fas am yéene am jom li maan yu tàmbali woon bàyyi nekkoon ca ñu nit ñu nekk ca ba ba sama borom di dogal ko so wax nit ki yow naka ngay nekk ak seen wajur mosuñoo naan sàngal musuñoo tox yàmba musuñoo dorogewu musuñoo agressé musuñoo sàcc musuñoo def lenn lu ko yow nga ñëw rek loolu yëpp ñu doon bañ daan ko daw yow nga ñëw rek yow nekk ca loola nit bu dul dara sax boo toogee ba sa yaram bi daw sa yaram bi xanaa nga a war a bul bitiku dellu socc sa bu dul dara nga sagal say waajur ndax dafa métti ci jigéen nga jur sa doom mu dem ci ay nawleen ñu wëlbati ko dellu si waat di la kalaame kalaame boo xamante ni bi ci ay nawleen diis na bàyyi leen xel way jur yi ngir jënd Serigne Touba bàyyi leen xel way jur yi da ngeen xam ne ki ci ëpp sens mooy kii jéem a góorgóorlu ngir xel way juram di daal ci moom moo ëpp sens ci ñun que ñun dañoo bëgg a fekk lépp te amuñu gàllank dañoo bëgg a dem amuñu gàllank dañoo bëgg xam lépp te amuñu gàllank dañoo bëgg a man lépp te amuñu gàllank fu ñuy muccee nañ fexe xel way jur yi dal bu xel way jur yi dalee rek sama borom uuf ñoo ngi yërmande joo xamante ne bi lenn lu bon dootu jóg mu ko daal si ci ñun jàppale leen ma ci loolu ngir jëm Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul gis ngeen yëngu-yëngu yu bari yi di am ci dëkk bi maa ngi yéen ñëpp ñoo ko gisandoo ñoo koy dundandoo man manifestation am na fii ma toog sama saal sama ronkoon ñu di tuur eh, bëgg-bëgg àdduna bu ñu taxee yàq suñu bakken ci lu yalla gërëmul billahi perte am te foo xam ni jàpp leer na la ni boko démé dé mëna la fa fék bo yëkkati sa tank jëf boko démé rek dangaa xam attention ay ma tu ko ba kon nak ni ngeen toogee ni léegi ni taxaw tax kenn ku nekk sama jëmu ji da ngeen japp nekk gi mu nekk seen bi xarimu rasul kese borom Daaru Muxti kese Seydina Ousmane kese li fi des li fi des li fi des yàlla yi kese lay doon bu ngeen seen loxo yi ma tàllal sama loxo xol bii set na seen xol yi bu setee wecc ci man gis naa li ngeen bëgg moo ko ñaan yàlla sama yow yëngu yu bëri daw bi xëcc yuuxu bi jaru ko jaru ko loolu ñu suñu bët yi bu baax balaa ñuy dugg ci mbir ñu jàngat ko ci soxna di ñu ngi leen di suñu gars bokk si participé noonu wax fi na ko nekk tàllal loxo rek te am yéene ci biir sa biir xol. lay sa bëgg la cay ngëneel ci yow bu ma ko ñaanee bu nekk sama borom bi la ko incha allah. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw even by Karaca. Будем Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, This Hallelujah. Kan moo ji

Akbar. ai ai dai, Russell. 来。